am bis jamono nga xam ne génn nañ Serigne Touba benn taalibeem dem ci Ndiassane ci Boukounta di koy siyaar taalibe Serigne Touba ba mu eggee sukk toog mbokk mbokk mi mu àndal nuyoo la ak bi mu ne ko yow foo bawoo ko ko maa ngi bawoo si Serigne mu ne ko ah Cheikh Ahmadou Bamba mu ne ko àlleer yu xuri ba kooku nga xam ne dañ ko dañ ko exilé yóbbu ko Gabon mu ne ko waaw mu ne kaay ma wax la dara ñoom de nasaraan si dañoo jàpp ñoo ko jëlee pamti pamti ko yóbbu ko waye du loolu naam soxla won amna ci waye du loolu li ko waral moy suñu borom subhanahu wa taala dafa yëkkati maqam bu reñ jur ko mboolem wali kum ko won nga xam li lii ko neena sa serigne kesse mo nango poser candidat ngir yennu natt bobu nga xamante mom lañ koy def muy natt bo xamante da daa la boole say non noonu hidat hidatin lu tollok ci juróom-ñaari at yo yoo dañu la boole say non sa bo xamante ne nga ëpp wala fu nga ni yóbbal wala yokkal nga dara suñ borom xamal Serigne Touba ne dañuy yam dong ci rëqi sa karaama sama sama xaama waaye sax dañ lay xar ala Serigne Touba ne ko man de xamuma te loolu mi ngi nekkoon ci benn xew-xew boo xamante ne xewoon na ci jumaa ji nga xam ne moo nekk ci Daaru Xuddoos si diggante Serigne Touba ak fi nga xam ne dafa nekkoon di def i'tikaaf ci ci ci weeru koor yonent bi alayhi salaatu wasalaam fekk fa foofa ak waa ahlul badar ba mu ñëwee mu ne ko yow de li des ci nga egg ci xut bu zaman des na at ndax xutbu zaman kenn mënu ko nekk lu fekk amoo 40 ans ñeent fukki at waaye daañu la dindi li nga xam ne moo ci des ngir nga nekk xutbu zaman Sëriñ Tuubaa ne ko man de sama gisin daa weesu foofu ñii nga àndal ñuy waa ahlul badar ci ñoom laa bugg a bokk yan si bi ne ko ñii de daa am lu tax ñu am maqaama gi ñu am mooy tuur deret te tuur deret weesu na Sëriñ Tuubaa ne mbay ma nga naagu yeneen ci bi ne ko ah am na sax nga leen lu koy may waaye nag loolu ñu bëri ñu mel ni yow egsi nañ buñ leen ko waxee dara duñu ko mun a yenn sëriñ Tuubaa ne ko man de xamuma li sama ruux sàkkuma ruux bi bay xam lu mu àttal waaye lépp loo xam ne sama yaram àttal na ko sam sama ruux àttal na ko sama jom man nangu naa dékku loolu mu ne ko kon nag waajal daañu la génn Tuubaa yóbbu la ci ay bërëb yu sori moom sëriñ Tuubaa leeral na ko ci benn bërëb ba muy wax ni sababul gaybati an allaha arada an anaala min hujaa wa an akuna shafian lil qawmi wa an akuna xaadiman fi dawla li sabab ma génn dem موسي يوران سبحانه وتعالى دفع نانغو ما نك كي خاني ماي خادم رسول صلى الله عليه وسلم دون كي خاني ماي نك كي رانو سما ناسيون لولو غيس نين نوم دي سيت سوبيت لو بري انا التي في كل سهل وفي خبر jëm ci yoonu géej gi sëriñ Mouhamadul Bachir def na ci ab téere bu ñuy wax Minanu Baaxil Xadim nekk noonu Irwa u Nadim bu Cheikh Mouhamadou Diop Dagana waaye lii lenn la ci leeral yi nga xam ne waxtaan bi jëmoon na ci Alioune Badara Wade lu mën a doon muy lu baax am nga pay ga ak ak pay képp koo xam ne roy nga ca loola ñu jóge foofu jóge na fa dem fu ñuy wax montagne sainte montagne sainte googu nag moom bokk na ci barab yi nga xam ne barab yi gën a raglu yu gën a tiis ci li sëñ bi jot foofu boo gisee ñu tuddee ko montagne sainte dafa am benn abbé bu fa nekkoon moo xam ni kooku moo njëkk a dugal christianisme ci Afrique centrale ñu jël ko affecté ko yóbbu ko foofu ci Gabon mu yor boobu yor fa lu mel ne genre mausolée ab ñu yóbbu woon ko foofee ñu ne gannaaw kii l'islam lay jéem ki nga xam ni moo njëkk a dugal christianisme ci Afrique centrale ma nga foofee te montagne sainte dañ ko jël boole ko bu ko defee xolam du neex waaye yàqalu Serigne Touba dara mu jaamu la ñuy jaamu Serigne Touba di jaamu la ñuy jaamu foofee dem nan ba nga xam ne bi Touba bi demee te sëñ bi la mu doon wax ba tey mu di ko wax la mu doon jaamu keroog la ko gën a man mbind moom doon bind keroog la ko gën a man ñun nag léegi benn pexe def nan ko def ñu jéem ko faagaanel nee naan keroog am na ci garab guñ ko yóbbu boole ko fukki soldat ak ñaar ak benn capitaine bu fukk ak ñett neeneen jamono jooju ku ci nekk jox nan la fetal ngeen nga fetal jëme ci moom waaye ci lislaam ak liggéey lislaam ku ci nekk dégg des histoire ak Seydina Ibrahim bàyyi boppam ya nga xam ni moo ko jur ak ñamu fekkoon se jamono jooja ak xërëm yanu gëmoon mu ni leen lii du fa nu mujjoon ak moom lan ko doon def paxu gasum pax def ca safara teg ko ci ci mbaq sànni ko ca biir sunu borom subhanahu wa taala wax ko yaa naaru wa salaaman ala ibrahim sunu borom moko fa jele ci katanam ak wuyu gim ko wuyu ci wote mba ak gëm gëmu gem yalla sunu borom ke manam boole ko sayidna ibrahim ni wala fi nek seddal waye bul yem ci sedd nak sedd googee na nga and ak sedd go am jam kon ni ñu dégg ci sedd moy amna ay ay lor yu ci nek barane ci ñun ak sunu mag ñi ñoo xamni ci si ñu ci bari ci ñi ko jambat seen yaram lan lan moko waral ndox mu sedd ak kalas kon alxuraan njëkk na loo xamal ne ab sedd am na foofu bu fa àggee dootul doon jàmm du baax ci moo tax ba mu yebal moom sedd ci Seydina Ibrahima la ne ko kuuni bardan wa salaaman si Serigne Touba bi nga xamee ni yóbbu nañ ko foofee ba nga xam ni du fukki soldats ak ñaar ak beneen benn capitaine ñoom ñëpp bi nu tiiree jëme ci Serigne Touba xel mi naaw woon am na ku ñuy wax ah, benn góor gu mag moom sax du woon Euh, mi ngi tuddoon Andrin euh, Andrin lañ koy wax sant woo nag ñu ci bari dañuy am sikki sàkka ci sant wi ndax ci prononciation ba jamono jàpp na mu yàggee moo tax dugguma ci sant wi ndax mën nga koo wax noonu waaye Andrin moom mu yow turam moom xam le na ni di moom fekke na barab boobu ndax am na ku ñuy wax euh, Abdoul Khadir Dramé Abdoul Khadir Dramé taalibe Cheikh Abdoul Khadir Jilani la am na ku ñuy wax sëñ sëñ Moustapha Lo bi muy defi gëstu ba dem Gabon fekk na sëñ Abdou Khadir Dramé moo moom moo ko doon wax yu bari ci sëriñ bi di ko tegtal ay barab yu bari ndax da doon defi gëstu ci yoonu sëriñ Touba mu yabal ko ci ku ñuy wax euh, moom it beneen sénégalais boo xam ni nekkoon na fa ndax moom ci bis njëkk yi fi sëriñ Touba ñi semaine ba mu fa demee semaine boobu la indi sëriñ Touba kooka ñu ngi koy wax band band band Touré sëñ Abdou Khader Daraame moomu moo yebal sëñ Moustapha Lo ni ko dangay dem ci ku ñuy wax Balla Touré mag la nag waaye fi mu dëkk xaw naa sori waaye moom nee na semaine bi mu ñëwee Gabon semaine boobu ci leen fi indi sëñ bi ñuy woote ndax lu ñu ko daan def dañ a fekk ñëwal comme ni ñuy defee màgg rek bu fekkee ne am na ko def jarima ñu a seetaan ñëw seetaan ku bëgg a seetaan dem sa yoon woon lan am ni sëñ Touba dañ daan woote ku bëgg ñëwal moomee nee ndax ki ko ki doon defi gëstu boobu ba dem Gabon سيني عبد الخالق درامي موم موكو يبال سي باند توري موم باند توري نينا سيرن بيم نيوي فوفو تي لا سيرن توبا نيوي بي ني يوخي موم فك نا تي نيا فكي وون نيا سيتان وون تلا بو نينا غارب غوغي بان سي بان فا يوبو سيرن توبا با فك ياك نيت تيري نيوم نيت نيپ نيم جوت فك نيت ييب فا نيت لي بابو لي نكو مانا ديمي موي توبا بين لا سي بندم ني وهب للوهاب في الثلاثه ما يخرج ما يخرج عشره وثلاثه kon ku doon bu ñu doon am sikki wax dëgg la am du dëgg Serigne Touba nee na may yàlla may na ma bisub talaata maa ngi yox jëlul ashrata wa talaata la ma suñu borom may moo gàcceel fukki yaag ñett yi doon tiire jëme ci kaw